Voir commencer avec ta hôte sur le dos au son des cloches des vraiment yenn dëkk yi neex parce que da ngay am sa kër am sa ay xar tu vois ñu leen di wëgg nii donc c'est c'est quelque chose de d'extraordinaire qu'on ne voit pas souvent à Dakar en tout cas juste pour vous rappeler que un cadeau pour un sourire décentralisation bi mbokk yi am na solo ñu ne ñu ngi fii ci Njaxate Njaasaan Njaxate Njaasaan nag

kon nak euh, Tafa ñi ngi de lool yow euh, ci décentralisation bi nga pour sourire def nako euh, ñew ci région de Thiès ñu gis nak nek région de Thiès vraiment comme yeneen région Sénégal yépp ñi ngi fii ci choses. nous nag danañu xuus ci yeneen yi parce que mbuur Nous la bokk waaye nag danañu dem ci biir Thiès nous ñoo ngi lay nuyu di la dalal jàmm bu baax a ah xëy na suñu xarit Dramé parce que nag sportif bu yoree bu yoree defe naa ne vélo ah kenn kenn kenn du en tout cas merci beaucoup Tafa laata nag ñuy woo suñu suñu suñu xale bi pour remettre ko cadeau bi nga am cadeau goo ci sànni parce que daal defe naa ne euh, li ñuy dox sànq maa ngi koy wax doxu jàmm rek la parce que kuy weccee euh, cadeau yi nga xamante ne bi sourire xale yi ñoo ñu ko gënal fuuf defe naa ne nekk na lu am solo. Tafa merci merci Yaram. Ah. Euh, man tam maa lay delloo nuyoo di wax ni STS sa mission de service publique tout à fait def ci bokk. informer mm-hmm. divertir.

encore plus proche de Tout à fait. rts couvrir mhm. donc tu vas créer deux. Mhm. quatre cinq. exactement pour que nous population tout à fait donc ce cadre mhm. la mission bi pour ay également. parce que occasion yi. xalé yu bari dañ ci cadeau. donc ci cadre pour mëna ci ñenn pour mëna très très bien waaw ñu euh, ah il est il est juste à côté de moi nga def

RTS de kontaan na vélo bi comme euh, euh, madame euh, Astou Tamba waxee vélo parce que c'est très dangereux en tout cas ngi lay ñaanal ak ñaanal say vraiment ci bi ci ci toujours région de Thiès en tout cas est-ce que am nga wax wala wala wala baax na non merci merci ah ak sourire très très bien en tout cas nous, ngi ngi di sant bu baax a baax parce que nag comme ni ñu koy faral di waxee ku béggal xale yàlla dana la béggal te RTS2 euh, comme ni ñu koy faral di waxee defe naa ne RSE bi ñu ni tamit ñu ngi ci jéem a yëngatu au nom du groupe RTS ñu ngi remercier justement ci occasion boobu le ministre de l'intérieur monsieur Ali Ngouille Ndiaye ak équipe am yëpp jàppale nañ ñu ci euh, décentralisation bi euh, di gërëm monsieur Racine Talla et toute l'équipe de la RTS di gërëm tout le staff de RTS2 en tout cas Tafa encore encore une fois merci yow tamit liggéey bi ngay bi ngay def ci RTS amna ci solo lol euh, xeyna nga fatali ñu tout rek liggéey bi nga xamanteni mom ngay def parce que xam nga ku nekk am nga gox bi nga xamne ne yaa fay yëngatu te mu nekk tamit lu am solo ci ci chaîne bi parce que chaîne bi defe na ne ku remplir chaîne bi rek dara du bax absolument ci lu mako mëna tanké aha tënkee. technicien vidéo. Mhm. c'est quelqu'un bo xamne moy jitu ci studio yi ak ci lien d'accord. ñoom ñooy merci sous tension équipement yi ñëpp wax soxla war ci aha def vérification yi. fexe ba nga xam ne ku ci nekk ci li ngay li nga nekk. dina mun a nekk aux normes. très très bien mu ci micro yi. Mm-hmm. mu ci machine yi mu ci écran yi mu ci caméra yi. Mm-hmm. tout ce qui est support de de de de de de de transmission. très bien en gros non, la ko mën résumer. très très bien en tout cas kontaan nañ ci parce que ñu ni tamit euh, ci biir euh, dox bi nga xam ne ñoo ngi koy dox euh, ci en cadeau pour un sourire ñoo ngi ciy sàkku tamit yenn information yi parce que léeg-léeg di nga sax liggéey ak nit waaye ah di nga gis ne mi ngi bés ba toit wala lii wala laa mais exactement liggéeyam lan lay jëriñ ci chaîne bi xëy na ko xam en tout cas ñoo ngi gërëm di sant encore une fois mbokk yi un cadeau pour un sourire sourire daal di wéyal yoonam man damay ànd ak euh, Mouhamed Mouhamed ñun ñaar ñu sourire ñu xol man ak yow ku dakh sourire ayca la de ah, ah. merci Mohamed à bientôt. ok bye bye ciao ciao merci. je cherchais un sens à mon existence j'y ai laissé mon innocence j'ai fini le cœur sans défense j'ai cherché l'amour et la reconnaissance j'ai payé le prix du silence je me blesse et je recommence. Du m'as comme